pour ranger derrière un candidat c'est mal connaître la démarche coalition bi neuf mois mu ligue, si tout le monde Benno Bokk élargi à la mouvance présidentielle et aux forces vives de la commune de Rufisque d'abord définitivement, investir def assemblée générale ma nangu investiture bi ci kanamu min imam yi kanamu délégué de quartier kanamu famille kanamu mouvement associatif kanamu leader yi bi toog yépp signé donc tey ne dama war a ranger fekkoon na nag c' était un jeu démocratique ñu def ko fii tënge ñu gagné ma démocratiquement par rapport à la compétition interne boobaa nag dinaa nangu ranger wu parce que nag doon mbooloo mooy doole

pour ñu sur si li nga xam ne ne de solution de facilité mais def naa sept ans à la mairie à la sept ans c'est comme deux mandats j'ai d'autres défis à relever défis qu'il m'a relevé, c'est refusé. d'autres me diront oui il était contre la il était pour la suppression de la ville le premier à poser le débat de la suppression de la ville c'est le président Matissa. Moi, ne quelle est l'utilité de la ville et l'utilité de la ville c'est koy wax mooy ville de Rufisque dafa nekk sans territoire le maire Daouda est là est-ce que tey ñeme naa mën a signer autorisation de construire mu ngi nii mu ngi foofu mais nag lépp luy teraanga si commune ville lay jóg commune yi ñoo yor usine yi ñoo yor mais alal bi mu ngi dem ville l'idée liggéeyu ville jouer son rôle d'intercommunalité dès le moyen dans les communes pour investir pour accompagner les populations malheureusement je ne ferai pas le bilan de la ville mais le constat est réel dans cet esprit d'engagement nous sommes, pour li nga esprit nous pour que le développement de l'espace passe d'abord par les communes

dafa Tengue pour aller en compétitions communale de Rufisque département d'autres ça, communes seront avec nous deux candidats de Benno Bokk il n'y en a pas deux nous ne sommes pas candidats de Benno Bokk nous sommes membres de Benno Bokk et nous accompagnons Je ne euh, ne ñaari candidat de Bokk Yaakaar Je ne ñaari candidat de Bokk Yaakaar ben candidat mo am taxaw ma candidat ñun la wax suñu candidature candidature defal defar dëgg terewul nak ñu ngi si Benno Bokk Yaakaar ñu ngi jappale président Macky Sall selon nos convictions politiques te kenn mënuñu see dindi je resterai député de Benno Bokayaka, j'exercerai sama mandat de président du conseil départemental mais dans la logique des élections locales cheminement bii ñu jël ànduma si tey ànduma si ëllëg ña ma àndal mooy yi ma waxaloon ak ñuy liggéey lay si seen gis-gis ak seen ba li di doon candidature déclaré na wala déclaré wul engagé wuñu li ñu engagé la ñu ne woon dañ koy def candidat à la candidature de Benno Bokk Yaakaar dafa nekk nekk la candidature officielle de Bolo Defar Tëngéej pour la conquête des collectivités territoriales des communes et de la ville de Rufisque loolu mooy li nga xam ne ne war naa kaa mën a wax te yàlla seetaanu kumbul bëtam a ngi ci kanam ñun ñëpp xam na suñu xol ñun ñi ànd xol la jëm si tëngéej maam góor wax na ko de su urée xam nga naka la ñëwee su kii bi urée su pënd bi urée balaa midi ñu tàggoog sunu gaay yi incha allah